moom li ma ko wax rek dama koy daan ba pare joxaat ko ndigal comme dafa bari wax dinaa ko daan jox ko ndigal dafa am loo xamante ne moo ñu ñor fi toll nii mooy comme ni ko gars yi waxee rek waaw ndam bi rek incha allah ndam bi rek incha allah. mais est-ce que xetali waaw loolu nañ bàyyi ba le jour si la 14 yàggatul de tey la mardi. la 14 yaakatul yàlla nañ si yàlla yóbbu jàmm soxul li muy wax si làmmiñam la yam déggoo ma de du ko jëfee te incha rabbi maay xeex maay bëre maay duma maay daan li ñu naan marmé dafa aaj ñu ngi gis ne soog bu jamono ji yokku na poids yokku poids boo xamante ne ñu bëri ñu ko dee yokku ak am na poids bu nit ci côté làmb ji ci côté bëri nag seen bëri xaw a dëppoo ndogu leen ci côté bu seen bëri sooku mbëru wet la ñëpp xam nañ marmé mbëru su demee si wet da lay daal est-ce que loolu lépp yàqu si soo si diggante soog ak ak poids bi mu yor ak gis bu diis aw tey laa lay wax lu ma mos a wax journaliste mooy bi may soog a dugg si bëri fekk suma mag nekkoon si réparé daaw la ak ñoom Pape Thiam numéro 1 ma ñëw dugg si sama yaay ma ñëw ne ko damaa am combat mais grand combat laay bëri mbapat de mu ne ma moom nag fitam moo koy rey ndax bi mu nekkee xale ba léegi lépp lu mu mës a rek fitam lay demee quoi daw daanoo sax bëreegul grand combat nga naan da ngay bëri grand combat ma ne ko insha dinaa bëri grand combat te dinaa daan te noonu la demee kon luur jaaxaluma mbapat moo mës a dem poids luur laay bindu comprendre nga amul benn poids lourd bu ma jaaxal soxu poids lourd yi ma bëral ñoo ko doole foofu laaj Pythagore daf koo jàpp duma ko daan ko jàpp magam duma ko daan ko bi mu daanee soxu si man la ñëw maa ko freiné laaj Pythagore ba nga doon fonkal la war a fonkal waaw kon soxu dama moroomam si lenn benn journée moo ñu boole rek te incha allahu rabbi lépp jeex bu neexee yàlla avant ñuy nuyu maanaam champion bi Lirou Diane ñu ngi lay nuyu baax a baax te di la siyaar di nuyu assistance yëpp di leen dégg bu baax a baax Marley dañ dem bis bu am solo si géejewaay mu ne bis bu am solo si géejewaay géejewaay dañoo si lu ñu jógee ñu leen métti lool métti képp ki ni champion bi géejewaay nga jëloon fii ki nga xamante ni mooy Nempré bëre moom dàq jël bu rëy bi nga ñëw ki nga xamante ni mooy Sokh mu jaral la nga tukki def ki nga xamante ni mooy Maroc deux mois lan moo waral a adversaire am lu ngay bàyyi xel waaw sëriñ maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax li waral moo tukki bu Sokh li waral moo tukki mooy staff yi ñoo gis ne dama war a tukki moo tax moo tukki dem Maroc def fa deux mois yu parce que li ma fa waroon def sax defuma ko dañoo amoon signature loolu moo tax ma dagaat beneen billet ñëw mais comme li may wax rek. soxul taxul ma may daj dara man li tax may daj dara mooy samay supporter li tax may daj dara mooy waa géejawaay mhm. li tax ma rey sama bopp mooy ñi nga xamante ne su ma jugee ñu jug mais soq taxumaa jug du xeeb du dara parce que bi may bëreek bëreeg Nokoré la bi ma waxee Nokoré la taxumaa taxumaa jug kenn contesté wul dañ ne mënu koo daan rek comprendre nga mais soq ku ne xam na ne àgguma fii si bëri mhm. te bu la 14 incha comme question bi nga laaj moom laa lay tontu nii bu la 14 dinaa ko si duuma dinaa ko daan nga xam ne ñi si kanam. ñoo tax may rayante mais du soq ndax dafa am feneen fu ma teg sama bët waaye. sa slogan yow mooy maa ay si la waa géej waaye di wayal moom keroog ñu gis ni euh, mu ni ñaar saa yoon laalante dan la daan jël yu bokkul ak moromam ana tey looy wax si loolu. waaw loolu loolu xam na ko. su ma jàppante ak moom mu ne gardien bi. bu tëjee tijji mu jàpp ma daan ma ne ko moo tal ay waxu gardien mais man taluma ko man li ma tal mooy li ma séq ak moom mooy la 14 ndax dafa yàgg taxaw fu ne li ma laaj pour bëre ak man comprendre mais la 14 dina leer du xeex du bëre maay duma maay daan incha allah. ñu ngi doon sama dernière question yaakaar naa la léegi sama tijji géejawaay la 14 janvier comme ça ay national ndaxte le premier janvier dañu am exception tey bureau yi toog ndeysaan muy monument Guédiawaye la la waaw le 14 janvier dañuy am ndam mais comme li nga wax si Guédiawaye rek Balla Gaye mooy ndaanaan mooy li ma la wax ndaanaan bu daanoo foog coow li bari chaque samedi ak am ku daanu mais ki daanu mooy ndaanaan tey bu daanoon coow lu du nii de. yàlla xam na loolu parce que da naan ah def na fi lépp Balla Gaye mënul def lu mu deful woon mook Boy Niang ak solo waa di sport sport moo demee noonu Boy Niang daan na Balla war na koo mën a daan parce que liggéey na lu tax mu war a daan Balla Gaye Balla Gaye mooy daanam rek moo waral tey xam nga bu daanoo coow li lay bari waaw mais nag xam nga yàlla baax na daal li si kanam raawul bër bala 14 incha allah. waaw salaamaaleykum. man la maa ngi lay nuyu di nuyu sama kilifa yi nekk yëpp pour sama mbokk journaliste yi benn question rek laa moom lay posé simple maa la da nga gis sa wax yëpp da nga am la confiance maa la tamit dama sama gis-gis maa jàpp na nga wàññi sa poids est-ce que tey xam nga combat bi tey fu mu lay yóbbu tey jii waaw maa ngi lay fay bu baax a baax c'est normal ma am la confiance parce que li may wuti ku koy wuti boo amul confiance nga bañ ko wuti moo ko gën ndax boo duggee si dara te dama woo si fit dama woo si jom dama woo ndax bëri jàmbaar moo koy def ak jom comprendre nga li ñu war daal mooy xam nga la 14 ñu ñëw jàpp waa ji duma ko daan loolu kese la amul leneen. waaw si bi tamit. biir géej waaye comme ni ñuy jàppale yeneen mbër yu mag yi ñoom ci jàppale boobu waaw maa ngi sant yàlla mais des na. xaj na moo li ma wax léegi rek Balla Gaye tey toll na foo xamante ne tollagul fa du ñu naataabule suñu bopp ak moom mais képp koo xam ne doomu géejawaay nga rek te am yéene ne war naa mën a jàppale géejawaay rek boo ñëwee jàppale ñuy xam nga waaw da soxla nañ ko quoi comprendre nga ñun gis nga fii fii nii nga nekk nii fii yëmbal la amul xor moom moo nekk fii pourtant bu ko nee xor mu ne yëmbal laay représenté mais diggante fii ak géej waa benn la quoi mais terewul daf ñuy jàppale comprendre yi ñu taxaw saal bi gis nga démb laay soo wax ak Malick Ngom yi ñu jàppale ma si loolu comprendre nga Xafoor Touré moom it jàpp na si affaire yi bu baax suma doom nday ji nii booy say moom Xafoor benn lañ quoi mais Ahmed Aïdara moom it ñu koy xaar pour mu jàpp si mais jàpp ko si quoi comprendre nga te dafa war a ñëw waaw ay doomu géej waaye lañ ñu ngi woo Pape Mama Fall bu baax moom it mu ñëw jàpp si xam nga di woo Abdou Aziz Ndiaye bu baax di woo Baye Ndiaye waaw Kor Ndiaye di woo waa Guédiawaye yëpp waaw di woo Racine Talla monsieur le maire mu ñëw jàpp si monsieur le maire Bara Gaye moom it ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàpp si parce que ñun xam nga waaw ay doomu Guédiawaye lañ quoi te am na loo xamante ni bu ñu xewlee gars yi war nañ mën a def teew pour jàpp si ndax Guédiawaye la ñuy représenté jaajëf waaw di Lat Diop ñu koy woo mu jàpp ci combat